waaw la ñuy def ñu bàyyi euh, nit ki mu dellu këram. waaw parce que boo xoolee boo xoolee corporation yëpp ku ci nekk bu ñu jàppee sa ñooñ. waaw mhm. ah, da ngay def euh, da ngay def bloc. Euh, mhm. pour def li nga xamante ne da nga koy jàppale ak loolu gis nañu voilà waaw chance boobu mu ngi noonu. fàttali juste rek avant loolu ne que Pape exemple par exemple da gis à chaque fois que mu nekk nit bu nekkee ci benn corporation. bu ko jàppee rek mhm. ay ñooñam dañuy jóg.

des médecins qui ont fait un bon jugement on a vu d'autres personnes qui ont fait une corporation des délits de droit commun dem un bon jugement mhm. mais à chaque fois yi dem les day nekk lu nga xamante ont lay nit ñi dañuy arrestation arbitraire la arrestation bu nga xamante véritablement sukkandikul ci lu nga xamante lu dëgër la pour ainsi dire mhm. par exemple le docteur euh, ko les médecins ont estimé que ni jàpp niñ ko mhm. bon amul benn faute bu nga véritablement nañ reprocher parce que def nañ ni dafa ak li nga mhm. bon libéré bon il se peut que d'après les informations ñu am que ñu présenté ko au procureur. Mhm. mais bu ñu ko présenté au procureur également bon peut-être mën am une issue heureuse bu nga xamante ne da ciy am. Mhm. Mhm. beneen problème bi mooy euh, enseignants yi nga xamee ni dañ leen di jàpp ci manifestation euh, ñu bari jàpp ni que warul nekk parce que ay jàngalekat lañ. foofu du seeni place ñeneen ñi naan ku koy enseignant bi tamit place am nekkul ci euh, manifestation et suñu rombee enseignant amna ci ñeneen tamit ñoo xam ay élèves lañ. Mhm. loolu aussi euh, est-ce que loi bi amna lu mu ci wax. non non en fait bu fekkee nañuy arrestation moom bu ñu def xooluñu nit ki parce que enseignant la wala élève la. wala militant parti bi la wala militant parti bi dama la wax sànq que ni euh, nit buñ koy jàpp c'est souvent par exemple des infractions yu nga xamante ne code pénal la ko tëral. La manifestation bu ñu par exemple ñu une manifestation interdite. Mhm. nit ñi ñëw ci manifestation bi lañ leen di trouble à l'ordre public lay doon wala ñu ne participation à une manifestation interdite. mën na nekk journaliste ba mën na nekk enseignant ba mën na nekk élève ba mën na nekk crème parce que élève quand même su fait ne jóge nga sa école nekkoo ci biir établissement bi yaa ngi ci mbedd par exemple participer à une manifestation tu n'es pas là-bas en tant qu'élève mais tu es là-bas en tant que manifestant fait qu'elle ne également enseignant la nekkoo ci biir classe bi yaa nekk ci biti à une manifestation tu n'es pas là-bas en tant que même si Balma, même si euh, élève bi mineur là. même su qu'elle est mineur là, parce que mm. tu es... moom une juridiction voilà on a on a des juridictions pour ça autant amener par exemple des juridictions pour majorité autant on a le tribunal des mineurs qui sont compétents compétent pour juger ñi nga majorité mais jusqu'à présent c'est quand même minime on peut dire comme ça pour ces faits de mineurs là ndaxte au fond li ñuy réclamer la libération de leurs camarades xëy peut-être ñi ñu une euh, responsabilité bi les ces enseignants là ils ont ne euh, initier il yenn yenn mouvement de grève humaine, et pourtant euh, font font casse ça n'a rien à voir avec leur travail non non le truc est que xale yooyu mën nañ leen le truc est manifestation moom bu amee. Mhm. da ngay gis par pëccëxoo dafay am. Mhm. voilà élève bi da ngay gis élève bu nga xamante ne jóge na fee dugg na ci manifestation da ngay gis par exemple kenn ko xamante ne dafa doon liggéey par exemple. dugg na ci kenn koo xamante ne chômeur la dugg na ci donc pëccëxoo lay doon donc la plupart policiers yi bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy jàpp par exemple ay manifestants si instant bi mun ñu xam ndax kii élève la kii enseignant la mhm. peut-être bu leen yóbboo ci commissariat wala ba pare dans l' audition bu ñuy auditionné dañuy xam ne kii élève la mi ngi jàng fale wala kii par exemple journaliste mi ngi liggéeyee fële wala kii par enseignant la wala nangam ak nangam mm-hmm. mais ci biir si feu de l'action bi do différence entre qui li la wala la la donc dañ leen dans le cadre d'une manifestation hmm. maintenant euh, waral peut-être yu nga dafa am indi hmm. mais am ni suñu tribunal ba euh, dañ leen libérer parce que ay mineurs est-ce que le statut mineur boobu moom tax ñu libérer leen euh, dara parce que bu ne bu ne mineur am ay conditions yu nga xamante ne dafa am su fekkee yow le civilement responsable que mu nekk sa papa wala mu nekk kenn ko nga en tout cas tuteur la et consort su fekkee ne porte garant pour yow euh, euh, présenter le jour où nga xam dañ la la plupart duñu place sous mandat dépôt xam nga dañ lay place au contrôle judiciaire confier le kooku et le jour bu nga xam ne la war a jugé ñu daal day indi waaw donc dañu am protection boobu nga xamante ne parce que mineur exceptionnellement exceptionnellement lay yóbbu kaso bu fekkee ne véritablement dafa def dafa nekk nit ku nga xamante def na lu ñu hmm, parlant d'exception ci arrestation yi gis nañ euh, Waly Diouf Bodian nga xamante ci la bokk euh, quand même par respect sa dignité am sa xam na xam ñu ngi koy partager je pense jaru ko ñu takkal ko bracelet euh, électronique ci tànk bi hmm. Euh, loolu moom liñ koy gis ba doon en tout ci xeetu